ñun dañoo jaxlé ndax ñun amuñu yenn jumtukaay yo xamna ci ni man lañ ko utiliser ndax ñepp nénañu fièvre bi mi ngi fi kon dañuy gëm ni fièvre bi mi ngi fi mais en même temps ñun tamit aussi nak war nañoo am ay jumtuwaay yo xam ñun taximaan yi war nañu ko mëna a jëflante ak ñun ndax tout temps ñi ngi yeb client di yeb di wàcce di yeb di wàccee té kon ñun ba tey nekkuñu sécurité té ñun normalement war na mën a nekk sécurité.

léegi buñu ci ci joxante xaar bi di joxante xaar ba tay ñun aussi tamit loolu man dama koy damay dama koy xawa ragal ndax client bu yëge bu yëge ci oto bi yëkkati xaar jox la ta dañ ni da nga wara a raxaslu ak sel war nga sol gant sol masque to yooyu yëpp buñ ko amul nit vraiment risque la bo xam suñ jabot ta buñ agge tamit aussi suñ jabot lañu dem te ma di taari man na dal suñ jabot kon donc ñun ñun taximan yi nguur gi waruno man bàyyi xel bu baax ndax bàyyi doon xel université yi bàyyi dañ xel hôpital yi bàyyi dañ xel lépp mais ba tey dégguma ñu ni taxi yi barki démb dégg naa interview ci tataay aussi ñu wax lu mel noonu ci tataay pour ñu am beneen taxawaay bu ñu taxaw mais ba tey man dégguma ko ci taxi yi quoi man loolu jaaxal na ma trop.